نحن معك خلفا وخالفا آه، آه، ندعو لك الله تبارك وتعالى ان يزيدك ثباتا ويزيدك قوه ويزيدك قياما بامر هذا المسجد لله تبارك وتعالى لا لدنيا او لغرض آه، دنيوي لا نقصد ذلك ولا نقصد اما اذا جاء نعمه الله ايضا فلا نرفضها لانها نعمه الله اذا جاء نعمه الله نقبلها وإذا لم يأتي فنحن فقراء دائما إلى الله تبارك وتعالى وهو الغني الحميد وقيل di wax wax wax wax waxi ay xale la dëgg la ay xale la mais xale yu jàng lañ xale yoo xam lañ xale yoo xam ne am nañ ay seetlu am nañ gis gis yoo xam ne gis nañu ne wu noonu waaye su fekkee am nañ ay gis gis ay nangam ak nangam ñoom am nañ yeneen yoo xam ne seen xam-xam dañ ko gën a xóotal seen xajulu yooyu dañ ko gën a ñawal ndax am nañ koo xam ne fan la koy soxlaaj ndax foo ko la jublu waaye suñu xalifa ak suñu bal jubluwul ci Cheikh Tidiane jubluwul ci Cheikh Cissé parce que loolu du tëgg ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mooy doomu bàyyi ko mag laa jeex na doo am pour delluwaat amul delluwaat Cheikh Tidiane mu toog du ñun ñoo ko fi teg bàyyi Serigne Aliou mooy xalifa mooy imaamu jumaa moom ak ay doomam lu du sax kon kenn doomu Serigne ah, li ñu mën mooy jàppale leen leen ànd ak yéen di leen ñaanal di leen di leen dëgëral di leen encouragé loolu lañ waxoon te loolu wax ne nekkale na moom nekkale na Serigne Aliou comme ni ñu nekkoon ak man loolu ñu ci jógee ku ñu sant ku ñu ci ku ñu gërëm bañuñ ci itam ku ñu xas ndax li ñu la war a xas nangu ñu xas la ci ah li ñu la war a xas nangu ñu xas la ci li ñu la war a manqué nangu ñu manqué la ci parce que ñun ku jógee ci Cheikh Baye dëgg-dëgg mënoo fay signal yi ak njabootam ñu ne mënoo gën loo leen nangul rek jaar nañ loo leen nangul rek jaar nañ parce que seen lépp lañ jaay seen lépp lañ wàcc seen lépp lañ saal yi pour ñun boobu nag dëgg munoo am dugub rek loo ko nangul rek dëgg la loo ko nangul rek dëgg la waaw te te nangu boobu du du addina te addina nekk du addina du du dara yàlla la ak topp ci ay waajur ñu kii la ñuy yàlla li ñuy yàlla la nag ñun ay xale ngeen alhamdulilah yéen a ngi jàng man ba ñu màkkal ñu yëngatu leen récolté leen mais nag seet leen récolte boobu fan la war a jublu xeex leen seet leen ñan ngeen war a xeexal xuloo leen seet ngeen seet xam leen ñan ngeen war a xuloo waaye waa dëkk bi waru leen cee xuloo kenn waru leen cee xool kenn parce que nag dëkk dëkk ay mbir yoo xam ne gannaaw Cheikh Ibrahima ba léegi góorgóorlu nañ ba dara ba dara li Cheikh Ibrahima doon defoo man nit dafa mun tamit nit dafa mel dafa mën ta mel ni bàyyi rek parce que jeex na benn mm-hmm. xalima la jeex na mm-hmm. waaye taxul nag terewul liñ fi bàyyi woon yëpp ñu koy sàmm ak suñu kéem kàttan liñ fi bàyyi yëpp ñu koy sàmm ak suñu kéem kàttan. jumaa jaa ngi bagaan yi daawu baa ngi ñu dégg ci benn xale bu yëntu alquran jaa ngi wasifa waa ngi sikkar saa ngi yàllaan ngi jokkalante gaa ngi bëggante gaa ngi mais dara dara mantul dara mantul waaye nag shabaab moo mel noonu nag marhaban bi shabaab walakin daa